waa Abdoulaye Wade daa feebar waa wala déet i eh. comité directeur du parti démocratique sénégalais ci tribune yéene kaay weddi na ko nee na loolu amul laa wax ka nga xam ne nag maanaam moo yor kàddu ga di ma yoro fay day ah nee na il n'en dara kon amul ca loolu la ñuy wax laa la wax ma ne la Abdoulaye Wade ni ki démb ah daa yendoo dalal kon militant yi laa la wax lu jëm nag ci wàllum tukkeem ga ca France ka Abdoulaye Wade dana fa def kon juróom-ñetti ah, la privé la ay mbiru boppam kon lay doxi moo jabar la ko wax dari Wade daal ak atam yi mu am nii ah leen na ko war de mooy yor kuru sam daal di kon ñaanal Sénégal gi njiital Sénégal di Macky Sall tey ma nga jëm ca Thiès i réew mi quotidien ne conseil des ministres décentralisé la le quotidien yi ne ne ma ne la maire bu Thiès di Idrissa Seck waaw ak premier adjoint di Yankhoba Diattara day du ñu gàttandu Macky Sall laa la wax laa ilaha illallah ma ne la ñoom ñaar ñooñee ah, ña nga jëm ca France parce que Idrissa Seck la wax bu Caen ca France di Joël Bruno moo a présenté yéen kaay ma jëmal jàngi ne fukki atu yàllaa ngi ni le programme spécial indépendant 4444 ma ne la benn dëkk ñaari gaar googe di Thiès waaw ba léegi ni le chantier bi mënul yegg te dara waralu loolee lu dul wàllum politique kese ma la Abdoulaye Wade dalay leer ne danañ diggante gaay nag ay milliards yi waa Thiès googe comme nañ ko defee nag ci yeneen région ya ci lu jëm ci conseil des ministres yi nga xam ne kon yaatal ci région yi Birame le quotidien yéen a kaay ne jàppal ma ne la élection locale dal rek na ñëpp ànd ak dal jàmm rek Aline Badara Cissé la mu xamle woon daal de l'intérieur di da caa génnee parti politique ya ya ne waaw dëgg la ma ne la président Macky Sall ci boppam xamal na waa parti politique yi ne leen jël élection locale yii daal koy def seen yëfu bopp laa la wax parce que ay romb sax laa lay wax ni ay mbirum parti politique direct info opposition bi day waaw jubbanti nañu président Macky Sall kon ci kàddoom googee de parce que maître El Hadji Amadou Sall bu parti démocratique sénégalais nee na bu gi le du parti politique waaw mais Macky Sall kon na retirer liste parti wax ta jeex maître Sall yamu ca parce que waye PDS ki nee 2009 Macky Sall xam nga ni lii mu wax ni daawu ko wax parce que bobé njital parti la won ba paré té ca lañ ko falé tamit mu nek maire bu Fatick la la wax Moussa Diakhaté bokk gis-gis nee budé mbirum citoyen la lan mo tax ba Macky Sall nak ba ñuy defar kon liste ci parti mu cey dugol loxo sé eh, Abdoulaye Wade day waaw ba muy wax au revoir ma ngi ñibi waaw ay bombe la fi bay de marti tali libération yene kay Ablaye Wade kay dane gagné leen Macky Sall fépp ak waa APR waaw waaw parce que gis nga élection locale yi lée la natt la ca la xam nag ci réew kan moo ëpp doole Cheikh Sadibou Diop M23 patriotique ci tribune kay nee gis nga Sénégal daal li koy miti du ñenn lutul parti politique yi lée i Cheikh Sadibou Diop ne waaw ma la xoolal du ñu def mukk ay débat ngir waxtaane nees def ba wutal xale yi di waxtaane nees def kon ba xoolaat mbay a indi saafara ci baax a baax fitna gi nga xam ne kon moom la ñu nimiku ca université gaye fitna gi nga xam ne te ak Malick Niang fitna gi nga xam ne moom la ñu gis kon ca nappkat ya ca caaroy gaye ak waa nguur fitna gi nga xam ne te maanaam moom la ñu gis kon ci arène politique bi lay diggante Mimi Touré Khalifa Sall waaw enquête yéene kaay ne Abdoulaye Wade ngay dem Abdou Diouf a ngi ñëw Sénégal eh cay Sénégal doomu Sénégal yéen ak ca bitim réew day am nañ eh ay financement projet la dee waaw naata Samb Mbacke moo jiite fond bii di fees lu ci tolloo juróom-ñetti téeméer ci ay millions la financé kon doomu Sénégal yéen ak ca bitim réew libération yéene kay ne coowal ne ko trans bi ci port bi le téere ji nekk ci kanamu yoon waaw port autonome de Dakar a gagné direct info ne sempos bu njànku mbeng attakat bi da leen a mujj ñàkkal de daan na leen de Serigne Khadim Diop kooki daal di ne tontu kon saltige nee na gis nga saltige yii ah, ay politiciens lañ i maa la ko wax dem naa ca làmb ja Ama Balde ci la populaire ne xanaa xamoo ne man ci làmb ji kaawoo naa ci libération ne waaye Malick ñaa daf maa dajeeg Jos nees guy gi lak roos gargamboo se bu dee mootloo nag moom ah noo yeggaguma nag fi mu yegg si wala yéen kay ne waa yof tey waaw jàpp nañ leen lépp a daje woon ngir Malick Niang ñàkk combat bi i waaw nee nañu seen doom ji Malick Niang ba mu duggee kaso ñu tuumaal ko ne da doon agressé nit te kaso day tojalaate da lay tojal jala seen xel day ñu juge ca loolu lé Malick Niang dem ca Amérique takk fa benn doomu yoof dem yim doon dem Amérique noo ne nekkuloon entraînement waaye ay noos la woon ñett ay mbokki Ama Baldé ne saax biir dugg ci xar fa fuufa Malick Niang ci mistigam i maa la wax ma ne la oto bi nga ne benn politicien bu mag moo ko doon al Malick Niang da nangu laa ilaha illallah ma la Malick Niang ba muy dem stade cortège ba dene may kenn topp ko di ko gunge moo tax ñun ñu jàpp ne lépp daje woon ne mënuñoo gañe yaayu Ama Baldé Daba Ndiaye ci laas eh, Ama Baldé mënul woon ñàkk làmb ji la dama ne ko demal li nekk sa dënn bi génnee ko Ama rayal sa bopp ngir waa Pikine ak ñiy nooy ndax yow yaayu Ama Baldé mooy wax de maire Daba Ndiaye ne keroog bañ la Jules Baldé daa dem si yàlla ga Falaye Balde jël làmb ne ko Ama bam ne ko Balde mu ne ko yaay gagné eh, moo tax ma ne leen Ama mënul woon ñàkk alaaji fàtte xëju fi te lépp dëgg la liggéeyu ndey moom añuk doom waaye barke bàyyi la papa bàyyi la kon alaaji tëjal